wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan rajim rabbi a'uzu bika min hamazati shayatini wa a'uzu bika rabbi an yahduruni saddih lisaani nawwir janaani safi amaani wa zid baraay barke borom Tuubaa kon ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel waaye nag di ko jaar ci seen télévision Galaxy TV dikkaat nañu ak yéen ci beneen waxtaan woo xamante ne ñoo ngi ko fas yéene séq ak suñu sëriñ sëriñ Abdoulaye Mbacke euh, laata may yaatal nag mbokk yi dama koy jox mu niyoo incha allahu rabbi bu noppee ñu soo ko soobu ci waxtaan wi kon bismillah sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax ci seenu taxawaay euh, bi ngeen taxawee ci bis bu màgg bi di leen wax dal leen ak jàmm jërëjëf sëñ Abdoulaat euh, ci nuyoo bu matale bi euh, tey nag mbokk yi ñu bëggoon a waxtaanee li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy woote bi mooy màggal gi solo si nga xamante ne làmboo na ko ak njëriñ yi nga xamante ne mu ngi ci biir màggal gi ak lenn ci yoonu géej gi ñu fas yéene ko waxtaanee ni ma leen ko waxee nag tey ñu ñëw ziar suñu sëriñ suñu Abdoulaat di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram kon sëriñ bi lan nga ñuy laaya biree ci li nga xamante ne nii mooy màggal gi ak njëriñ yi nga xamante ne moo ne ci biir. màggal gi moom xanaa dañ ci àggale suñ yéene feeñal yéene ji rek waaye liñ ci war a wax yëpp fan yëpp borom mi xam-xam yaa ngi koy wax ñëpp dégg nañ ko kon da di eh, bu ngeen ko laajee te waxuñ ci rek eh, eh, ñàkk pëseef lay lay doon ci ñun solo su màggal gi nak mom li ci xam mooy ndigalul serigne bi la ndigalul serigne touba lu wér la lo xam serigne bi jot ya, nako defal bopam ci ñepp nañ ko muy bis bo xamne bis bu daw yaram la bis bu tiss la waye mujj yi muy bisum mbekté ndax man la bis bu daw yaram la di bis bu tiis mooy gaaw bi sëñ bi xëyee Mbàkke Bari Jolof jëm Ndar bis boobu bis bu tiis la sëñ bi xëy ginaaw bi mu jullee suba ba noppi ba génne ci jàkka ji ñu tàkk fas wi mu yéeg war a tàq tàkkoo ak njaboot gi loolu bis bu daw yaram la bobu ak njabotam gi fi jot fek eh? ci sahir seen at wuton ci sahir xamna ne du upp juróom ñent japp fuk ci at ak taalibe yo xamanteni nga tok leen yar leen nga xamni yow rek lan min ak say rak ñoom ñëpp doon say bi nga yar leen ñu miin la nga xam xamuñ ku dul yow ñu xëy benn bis nga war a tàqali ko ak ñoom ci ci saaxir ngir dem te ñëwaat moo tax man la bis bu tiis la moo wax leen ne leen damay dem liggéey yi rek te ñëwaat bis bu boo bis boo jaxasoo na lool mbooloo mu bari topp ko mu dem mu demee dajeeg tubaab bi te ci ndigalul suñu borom la demee ndax bëggoon naa duggaat ci biir kër gi ba mu yàgg mu laa ilaha illallah sama boroom xamal na ma ne ma euh, euh, duggaat ci kër gi xaraam na jaataka nag dem ak fim jaar ci yoon wi yëpp ba dajeeg ñoom ba yóbbu ko ba ndar ndar yu baree bari xew na fa yu baree bare xew na fa ci yooyu yii ñu ngi koy wax am na yuñ dul wax mu jóge ndar ñu jàllale ko ndakaaru bi muy dem mi ngi ci koor dugub koor gi ñu dugal ko ci saxaar gi ñu ko dugal képp daadoon saxaar goo xam ne ci fiñ ko ci dugal waroon nañ koo mën a dugal ci geneeni wet waaye fañ ko ci dugale lu metti la ba ba muy àgg ba ba mu àgg ndakaaru ba mu àggee tamit ñu dugal ko sa néeg boobee muy guddi ajjuma alxamis si guddi bët set di ajjuma dafay xew yëpp xew fa mu doon bis boo xam guddi goo xamante ni suñ wax na ne eh, su ci xelam demee rek eh, day bëgg a jihaat waaye daal boo xam ne muñ natt yooye yëpp ba mu xëyee ci ajjuma ja nag ñu jël ko dugal ko ci gaal gi wax gaal gu ndaw gi moo moo ko jël yóbbu ko ci gaal gu mag gi ñu yendal ko fa fanaanal ko fa ba bët set di gaaw bi mu xëyee ci gaaw bi nag ci la gaal gi deq dem mu jaar fam jaar ak ji fi xew ci yoon yépp boo ko bëggee wax day gudd moo tax ñu tënk ko noonu mu daal di ñëw Gabon ba mu àggee tamit ku ne xam na ne yëfay xew yépp bari na ci yoo xamante ni doonut yu ñuy yu ñuy nettali ndax am na ci yoo xam tubaab bi dañ koo nëbbu am na ci yoo xam ne ñoo ko nettali ndax bari na ci yoo xam sëñ bi <coughs> ñoom dañ ko daan ñaan ne ko bu ko nettali mun leen du ma ko nettali waaye suñ ko nettalee ma nettali ko moo tax yoonu géej gi ci bëri sëñ bi nettaliwaat na ko daa xaw a tiis loolu moo tax daanaka duñ ci bëgg di sari ndax yoonu géej gi daa xaw a kiimaane ndax bañ demee foofa natt yu bëree bëree bëri teg nañ ko ko fa ba noppi bokk na ci ku ne xam na ne am na ay xeeti yooyu fa amoon yoo xam ne bu la màttee am na jeexit tooke yu muy def ci sa yaram joo xam ne eh, mën na laa jël sa bakkan am na tamit ay dégg yoo xamante nii dig yu jóge ci garab yi yu fa am yoo xamante ni boo ci jógee moom it tooke la joo xamante ni moog jaan màtt la am yooyu yëpp am fa daan doon loo xamante ni eh, kuñ fa yóbbu ci saaxir loolu mën na laa gàllankoor mu doon mu doon eh, kon kon loo xam ne ba nga xamante ni wax nañ ne si mu ñëw na ba njaareem sax euh, euh, euh, matt matt yooyu ko daan sam maanaam liñ bàyyee ci yaram bi ñëw na ba njaareem ñu koy sekki waaw nag bokkoon na ci ci jaayante yi lu mën a dox ci yaramam ak lu ko matt ak lu mën a doon du ko dimi du ko faa da koy da koy bàyyee noonu rek loolu moo tax su koy yooyu mu sànni sam du ko dàq du def dara day bàyyee noonu rek yu bare bare bare xew ca ci biir moo tax yoonu géej gi moom dañ koy tëb noonu rek nañ ko nañ ko lamas noonu eh, ñëw ci solos màggal gi ak wate bi sëñ dafa wax ne ndax eh, li waral mu eh, wate nañ ko ci boromam da daan def bis boobu saa bu ñëwee ay nattu lay doon yu ko sun borom di tekk te nattu yooyu nag eh, dañ ko daan ful tey bu doonee eh, eh, junni bu bis bi delsee fukki fan ak juróom-ñett dañ cey dolliwaat beneen junni muy ñaar ci misaal bu ma ñëwaatee dañuy fob ñaari junni ya amoon dolliwaat ci yeneen ñaari junni muy ñeent moo waral niñ ko daan fule di di di gaaw tey metti te at mu ne day gën a metti nag at mu ne day gën a metti nga xam ne wax nañ ne bu bis biy jub mi ngi waa ngir séentu nattu yi ko suñu borom door a teg fas ko yéenee jëfe fas ko yéenee dékku yàlla dogal nag ba bis nee na ci géej gi naa Jibril ñëw fi moom xamal ko ne ko sa boroom nee na li nga jaayante woon mat na te ak njëg ñaar da ko bokk te da ngaa jënd léegi nag nee na eh, weer yi la dese fii ci géej gi weer wu ne dañ koy def am at ngay def ko eh, mooy ati gànnaar yi xamal ko ne ko ndax taaliba yi nii ñu la bëgg dañoo jubewut am na ci ñoñ dañoo jubewut noonu te boo boo bëggee bu ëllëgee melokaan bu ñu mën a amee dem dem ci àjjana da koy fàggu ba noppi ati gànnaar yi ñëw mu nekk fa moom it nekk noonu ci nattu yi ba biir Seydina Jibril waat ne ko sa boroom nee na li nga jaayante woon mat na te ak njëg ñaar du ko bokk nee na bis ni ki tey eh, ku bëgg fi moom dara wala nga bëgg fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara te awewu ko fi yow bis ni ko tey ak amam faat eh, eh, na li des ci jamono it maqaamam xut bu samaan teg na ko ci sa loxo yaay seet ku la soob nga di ko jox biñ demee nag ba njaareem muy seen bis muy seenu nattu yi Seydina Jibril ñëw ne sa borom nee na nag nattu yi jeex na kon ak fayee fi des fay gi nag noonee ñu daan fule nattu yi noonu la fule fay gi mboolem may yi ko sun borom may li muy rëy rëy rëy rëy saa bis bi ñëwee dañ cee dolliwaat lu toll noonu saa ñu demaatee ba at ma ñëwaat ñu fabaat lu noonu dolle ko ci niñ doon fule nattu ya ni la ñuy fule ma may yooyu noonu lañ ko tax nag mu ne nag lii sama jëmm kepp lootu na ci kon na ma ñëpp santale sun borom gat ndax ci loolu mbooleem lu mu sa sàkku ci boromam li mu bëggoon lépp lépp ci diggam ak yonente bi diggam ak sun borom lépp contrat boobu ci bis bii la ko sun borom signé muy loo xam ne mu daal di wax nag ne ni ma demee ak yéen laa leen bëgg a leeral dafa mel ne nga fekk nit fi barab mu rafle lu mu sol rafle fu mu dëkk rafle lu mu dunde nga sang ko ba mu set jox ko lu mu sol jox ko dëkkuwaay bu mucc xëyib jox ko ci alal lool ngiruk dundam du jeex kookee bu ngeen demee ba benn bis ñëw alal joojee nga ko joxoon boo ko ca laajee lu tolloog benn dërëm bu bañee lu ngeen jote moo la tooñ sama bis bii bu ñëwee lu waaye man nanga ko ci def lu waaye mënut nanga ko ci def mooy digleeg màggal gi nga xam ne képp koo xam ne suñu borom taw feexe na la nga fekke ko loo man nga def ko te xam ne ndigalul Sëñ Tuubaa loo mënut nga xool la nga man nga def ko la nga mënut nga yéene ko boo amut alal am nga doole soo ñaq loo mën a loo mën a jëf ci sa doole nga def ko muy bernde muy kafe ba ci benn tàngal sax bu ko xeeb yéene jee ci ëpp solo ak sellal gi kon loolu mooy wooteeg màggal gi noonu la ko sëñ bi waxee bés bi bisub sant la santale ko sunu borom ndax mboolem euh, euh, nattu yi kat bi muy ñëw waxut nañ ma ci sant la saa ci nattu yi ma ci teg da koo dékku mu doon muy metti mu dékku lépp tegoo ko ba nattu yëpp jeex kenn dimbalewu ko ci fay ga nag mu yéene ñëpp jariñu mun ne nañ ma santale saa borom la moo tax bisub sant sunu borom la boo xamante ni ku yàlla taw feexe la eh, eh, eh, ba ba sa dërëm dem ci wala saw sa sa sa doole dem ci am nga taw feexe sëñ bi boo boo boo boo amee tëleeg yaram am tëleeg ba nga mënoo cee def dara it nga ñëw teewe ko boo ko teewee ñuy bernde di la jox ngay jëfandikoo bernde yi yaa ngi ñu ko jëf képp yam kon bis bi mi ngi noonu di bisub sëñ Tuubaa ku ci raw raw ba faaw ku ci feeñ dootoo nëpp sëñ dégg nañ sëñ Saliou euh, mu nettali ba tàyyi ne bu ñaar dendee kii di ko def kee du ko def ki koy def dana ko rawee lool kee dana xam ne eh, màggal la waaw loolu yàgg na ku ne yàgg na ko dégg ci ay waxam kon bis la boo xamante ni lu ko waay yenn àttan na ko soxla su ci waa su ko waay teg àttan na ko euh, ñi ñi ñi ngi ñaan yoonu jàmm ak salaam ñëpp agsi ak jàmm euh, da dajeeg tawféexi sëriñ bi barkeb sëriñ bi kon ngeen jéggal nu kàddu yi gàtt na waaye. jërëjëf sëñ Abdoulaat eh, yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel seen télévision Galaxy TV eh, lii mooy li leen indiloon ci li nga xamante ne tey mooy eh, waxtaan wi lii nag wax dëgg yàlla ñu ngi koy sante suñu baay bàyyil ndax. mbooleem loo xamante ne ni luñ ciy dox wala ñu ciy wax rek matale na ko tey taxawuñu ba fi nga xamante ne foofu la taxaw di yem kon ñu ngi jégalu bu baax a baax waaye sëriñ bi dañuy sàkkuwaat rek ndax yow moom dangay cëri xasida yi te mënuñu fee ñëw yëkkati kàddu ba wàccee ko te it duñ ci tudd xasida yi kon lan nga ñuy dénkaat rek ci xasida yi rek ñu tëjee ko incha allah. xasida yi de moom liggéeyub sëriñ bi la ku ci japp da nga ag ci sëriñ bi li ñuy dénk suñu di ko denk ñepp dal muy fonk njabootu sëñ tuba gi warma len fonk xasida yi tadi ko jang. xasida moom lo ci mën jang Ken doyut kenn ta jang lepit li am solo moy nga xol li nga ci mën saxal mu neew mu bari nga saxal ko bis bu set nga def ko saw sas di ko jàng li ci des nga warmaal ko wut wut ko wutal ko barab moo xam walis la moo xam e, e, ab saag moo xam lu mën a doon nga def ko fa di ko toppatoo di wut laj ko doon di ko ci sotti daanaka moo dañ la ciy bindal tiyaaba joj moog li ngay jàng e, dañ lay bindal ci li ngay jàng dañ la ciy bindal ndax xasida moom léppam ki la li eh, ci am sol dal moy selal gi selal gi diko ko serigne bi rek tax ban ci eh, eh, fas dara ay adina jang ko rek to serigne bi tax jang ko jox serigne bi addiye rek ku ci te ko ba dana la dana la wo mat la ci kanam serigne bi waaw xasida yi moom man lay jang bu bax ak ko diko ko saytu bu bax saytu gi wàllu bindin wi ak wàllu toppin wi yooyu yëpp it mën nay gën a bàyyi xel njàng mi di ko jàng di jox sëñ bi addee rek waaw maanaam euh, loolu daal ñu ngi ciy soññi suñ bopp di ci soññi ñëpp maanaam bañ cee dugal daray àddina ndax jamono ji léegi folklore yi dafa bari maanaam boo amutu kii tuuti rek euh, da nga ci dugal àddina te te sëñ bi moom lépp lu àddina dugg rek du ca doon dara fexe ba sàmmonte ba bañ cee dugal addina di ko jàng te sëriñ bi rek tax di ko jox addiya boo ko defee ndax wax nañ ne xasida day e, am na waaye e, dañ ko bàyyi noonu ba nga ñëwaat am na ci yoo xam ne daanaka e, lu neexal leeral waaye daal ñu ci soññ suñ bopp di leen ci soññ yéen yéen ñëpp man lu mën a àggale nit ci suñ boroom la te boo taqoog moom danga nga baay yi da nga taqoog sëriñ bi waaw loolu loolu a wér ci ñu ak mokkal gi waaw gi fi ne bu njëkk mag jamono yu njaareem bari ci ñoo xam bisu set dañ daan jël fukki way ak ñaar di fukki way ak ñaar donta way nga man nga jël ko bu da nga yu bare bare ndax li nga mokal ci xassida yi eh, bu ëllëgé dalay wétt li fi sa euh bu baba xassida bo mokalé genn xassida xassida googu bu nit ki faato euh arafu ci nek day doon ak lèr wét wéttali la ci bir bàmmeel bi moo tax mat nay fonk bu baax a baax liggéeyam sëñ tubaa la sëñ tubaa nak leppam genn yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dundam gep ñom la ko jox lépp lépp gën lépp ak di da mboolem euh, euh, euh, kuy ab jullit ameel nga njukkal Sëñ Tuubaa ndax ñëpp la faagul ñëpp la faagul irham jami xalwara kon ñëpp a ci biir jullit yëpp a ngi ci biir ku ci génne sa bopp yaa ci génne sa bopp waaye Sëñ Tuubaa moom ñëpp la ñaanal li ñëpp la faagul jërëjëf jërëjëf Mbacke Balla eh, di la ñaanal rek suñu borom guddal fani wëral wéral cëri barke cheikhul khadim ba mbollem na li nga xamantene ne nga ko liggéeyal ku dedd ci cheikhul khadim lepp mat ta mu fekk la fi fekk fi njabot gi barke cheikhul khadim kon mbokk yi li moy li nga xamantene tay mom lañ leen indiloon eh, di leen jox dox dajje ci benen jotaay incha rabbi kon fofu lañuy wacce suñu kaddu mbokk yi di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñu jox sëriñ bi rek mu ñaanal ñu